ñu bokkal sopp Seydina Alassane Salam no ngi leen di nuyu di leral ci natal bi ngeen di janoon muy wone ak di fessel bisub ziar sëriñ Alassane Salam serigne Salih Salam jàpp ko ci samedi le 14 novembre 2020 mudi wer wi ñuy dugg inshallah rabbi mudi di novembre ren nak serigne Salih Salam dafa joxe ndigal ak soppiku ci bis bi mudi bis bi kep ku yag teewe li nga xam dañ dan xey na ci yenn ci ba ngoon waye itam fana nek bu beset ren ak jamono ni mu tëddee sëriñ Saliou Salam joxe ndigal wax ni nañ ko yamale takusan waye tamit limi gatt gatt gatt melna ni yaatu na ndax lepp lu nane def ci bis bi inshallah allah rabbi ko ci def ndax bis bi masul genn jang alxuraan karim ak jang ay xasaayit def ay lim salatu nabi ak waxtane serigne bi kon buñu ñu dañu fasiyene jàng kër yi ñaanal ci sëriñ bi waaye itam jàng ay lim ci xasaayit def ay lim ci salaatu ala nabi ak mboolem xibaadaat bu nit bu waay mën ñaanal ci sëriñ bi buñ ca jógee dem ca xabrum mu tedd ba ñaanal ko fa dellu ci sikkër gi waxtaanee ak dundam ba julli tisbaar teral gan yi bendal gan yi xewlu ba noppi fas yéene waxtaanee waat sëriñ bi ak dundam ak jaar jaaraam ak mboolem mag ñi xam yëg nañ ko te teew ci mboolem mag ñi ko yëg te teew ci bis bi jox leen micro ñu waxtaanee sëriñ bi ak liñ fekk ci moom ngeen di ko dégg ci témoignage yi ñu fas yéene leen teewal ñu waxtaanee ko ba tàkkusaan ñu julli daal di ñaanalante noonu la ko sëriñ bi waxee kon loolu mooy diggal li ndax bisu sëriñ bi moom mosul génn jàng alquran jàng xasaayit ak ay salaatu ala nabi ak xibaadaat mboolem xibaadaat yu waay mën bu waay mën ñaanal ko ci ak waxtaanee ak dundam kon kon mel na ni temps bi li muy gàtt gàtt loolu yëpp dana ci dugg. kon lii mooy ndigal li sëriñ Saalix Salaam joxe ñu ne woon nañ ko boole ak audio bi donte nataal bi ku ko xool di nga ci gis programme bi yëpp waaye ñu ne woon nañ ko jàllale waat ngir mbooleem jullit ñu xam ko di ñaan suñu boroom génne ñu ci mboolem li nga xam ñu koy dégg ci àdduna bi def jàmm ci réew mi di ko ñaanal mboolem jullit waaye di ko ñaanal àdduna bi yëpp ba déwén incha allah rabbi ñu def ko nañ ko nan defee seen mbokk Adama Salaam wa aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.